réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll ami charinto na yéen ñi di seetaan les patriotes TV dal leen jàmm ci xibaar Macky Sall nag chaque jour day gën am li nga ne moo di ab problème luy waral loolu mooy lan ki xam ne moom moo di waa APR tey ji foofu lañ nekk du xuloo di xiiroo di ŋaayoo ndax lan d'accorduñ ci li nga xam ne moom moo di Macky ak li nga xam ne moom njooñam lañ war a mën a euh, jiitee li nga xam ne moo réew mi te su ngeen presque tas ah, tas tasar ba kenn koo xamante ni dem fu ngeen eh, dem yoonam dèjà sax ñu bëri ñoo ngi commencé di démissionné Macky Sall moom nekk na ko xam ne nguuram bi daal dina pare famille baa ngi commencé di tas nak nak ndax APR peru na APR tey moom lu fa daal di xew nekk loo xamante ne lu doyo doy waar la ndax ñi ñaa ngay xeex ni ñaa ngay xulo parce que lan ndax loolu mënuñ am benn gàllankoor yi nga ne moom moo di Macky Sall dèjà ñuy wax de Macky Sall nekk